jërë ngeen jëf mbokki téléspectateurs yi ñu bàyyi xel nuyu nañ leen rafetluwaat ànd bi ngeen di ànd ak ñun di leen wax ne dal leen ak jàmm ci numéro un xibaar yi nga xam ne mooy bàyyeekoo fii ci foire internationale bu Kaolack di foire bi nga xam ne at mu jot day am ci dëkk bi ren ji nag ñu door ko 25 janvier mu fas yéene wéy ba le 10 février foire bi nag ñu ngi ko ubbee ak lël boo xam ne amal nañ ko ci bërëb bi mu nekk lël boo xam ne dañ ko jagleeloon waxtaan wu jëm ci réewu marok ak taxawaayam jëm ci marché maanaam jënd jaay ci fi nga xam ne moom moo di sous région bi loole nekk lool. kilifa yu bëree bëri teewoon nañ ko bokk nañ ci président chambre de commerce bu Kaolack ak yeneen kilifa yoo xam ne ñu ngi bàyyi ko ci réewu Maroc loolee lépp ñu amal waxtaan wu am solo woo xam ne jëm na ci li nga xam ne moom moo di marché bi jënd ak jaay ci réewu marok ak ni nga xam ne noonu lañ ko mën a yaatalee ba ci bitim réew. mbokk yi ba léegi ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel foire internationale bu Kaolack amal nañu cérémonie d'ouverture bi ci teewaayuk jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllum jënd ak jaay ci Sénégal di Aminata Assome Diatta ci teewaayuk président chambre de commerce bu Kaolack ak chambre des métiers yi nga xam ne ñoom ñoo organiser foire bi moom jëwriñ ji nag yëkkati na ay kàddu xam ne ne foire bi nekk na bërëb boo xam ne wala période boo xamante ni day suqali li nga xam ne moom moo di koom-koom diwaanu Kaolack waaye di soqali li nga xam ne moom moo di koom-koom jëmee ci réewum Sénégal ñu ànd teewlu kàddu yi nga xam ne jëwrin euh, jiñ dénk wàllum commerce di Aminata Assome Diatta yëkkati na ko. di wax ni euh, maa ngi am dent ñëw teewee euh, cinquième édition foire bu la bi nga xamante ne vraiment liggéey gu am solo Serigne bu ba nga koy def ak équipe te mu nekk initiative boo xamante ne mu ngi koy liggéey ak. collectivité territoriale ñu xam ni Kaolack dafa yàgg jouer rôle bu am solo ci wàllum économie ndax Kaolack dafa nekk ville boo xamante ne euh, xeet yëpp da ko fi fekk mu nekk capitale euh, de la région naturelle du Sine Saloum donc bi ñu tolloo ci jamono gën a dëgëral suñuy diggante ak yeneen dëkk yi ñu wër dañuy rafetlu euh, le fait que euh, foire bi ñu am comme invité d'honneur royaume du Maroc waaye tamit ñu am comme parrain euh, Guinée Bissau Guinée Conakry République de Guinée di wax ni vision bi ñu am bi nga xamante ne moom la président chambre de commerce bu la am ak union bi nekk na vision bu am solo surtout bu ñu bëggee gën a doxal région bu la thème bi nga xamante ne moom la ñu jël pour édition bi di ko justifier mooy marché communautaire bu CEDEAO enjeux et perspectives euh, thème boobu nekk na lu am solo xanaa di gën a wax ñaax euh, acteur économiques yi ñu gën cee jàpp ñu fexe ba réforme yi nga xamante ne moom la état bi di mettre en œuvre wala mu koy envisager ñu jël ko mu nekk seen moomeel ba nga xamante ne dinañ leen gën a préparer ndax ak zone de libre échange continentale africaine dañu war a am taxawaay bu dëgër pour mën a gagner ay part de marché ci ma bi waaye tamit ñu gën a mën a indil njëriñ askan bi te di wax ni gouvernement du Sénégal taxaw na tem pour jàppale leen ci loolu ndax xam nañ ni am nañ ay structures yu bëri yuy gunge euh, opérateurs économiques yi pour ñu gën a xarañ ci seen liggéey lu ci mel ni ADPME yi nga xamante ne ñoo nekk sama département donc boo jëlee chambre de commerce yi di nga gis ADPME di nga gis bureau de mise à niveau di nga gis ASAPEX ak yeneen service yi yëpp yi nga xamante ne ñu ngi jàppale opérateur économique yi mu nekkoon euh, kàddu yi Aminata Assome yi nga xam ne yëkkati na ko ci cérémonie d'ouverture foire internationale bu Kaolack bi ba léegi ci cérémonie boobu la ñuy des ndax ki nga xam ne moo jiite chambre de commerce d'industrie et d'agriculture bu Kaolack di monsieur Serigne Mboup moom nag euh, ci cérémonie d'ouverture bi santaan na bu baax a baax ci taxawaay bi nga xamante ni euh, kilifa yi réew mi am nañ ko mu jëmee ci foir bi waaye it ñëwaat ci solo si nga xam ne foire bi am na ko. ni nga xam ne noonu lay taxawoo lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu koom-koom ci diwaan bi ñaan teewlu kàddu Serigne Mboup les collectivités locales et les opérateurs économiques nous devons travailler ensemble et je lance un appel pour képp ku nekk am économie fenn fi nga nekk na nga dugg ci collectivités locales yi loolu mooy tax économie bu fiable bu taxaw ñu mën ko def mais avec un objectif de soutenir l'action du président de la République ndax président de la République il a été élu par 58 pour cent aujourd'hui li ñuy wax ñun d'accord nañ ci que ñu dem liggéey on n'est pas rentré en politique on ne peut ou bien on n'a pas rentré pour dire on veut la mairie pour contre l'action de gouvernement dof mooy xalaat ne la mairie mën na liggéey sans l'appui de gouvernement la mairie est un transfert de compétence il faut que nous tous qui doivent nous accompagner On est avec le président de la République, travaille avec le gouvernement pour ramener Kaolack là où il était avant. Kaolack était une ville carrefour, Kaolack était une ville religieuse, Kaolack était une ville que tout se faisait ici. fii xam ngeen ne fa la Senghor wut si ndimbal fi la Abdou wut si ndimbal Ablaye Wade fi la njëkk a def congrès fii Macky Sall fii la fii la yoraaw fii la jàngee kon nag ñi ngi yaakaar ne Kaolack dana delluwaat fa nekkoon nekkaat fa loolu avec l' de des waa l' ensemble des politiciens l' ensemble des marabouts l' ensemble des acteurs de développement je vous salue et je ca kanam Kaolack ci kanam. maa ngi ndokkal sunu ganu marocain yi nga xam ne nii dañu ñëw ak ñoom ñëpp. ku dugg seen stand bi xam nga ne ñëwante mu nekkoon président Serigne Mboup ci euh, kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci bi ñuy ubbi euh, foire internationale bu Kaolack bi ci le 25 janvier 2020 fas yéene woy ba le 10 février bii nii ñu dënmal mbokk yi foire internationale bu Kaolack nekk na jamono boo xamante ni jënd ak jaay la waaye foire boo xam ne dañ ciy weccante xalaat di ci amal ay lël yu am solo ci ay kilifa yoo xam ne dañ koy seq ay boromi xam-xam lépp rek ngir jël ay xalaat di ko weccante mu jëm ci koom-koomu réew mi ak yeneen fànn yoo xam ne dana yitteel askan wi. rawatina réew mi di Sénégal ba suñu euh, continent bi di Afrique mbokk yi lii lañ leen indiloon tey ci euh, xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel foire internationale bu Kaolack ci numéro un bi dig leen dajee incha allah ëllëg ci yeneen i xibaar fii ci cœur de ville bu Kaolack jërë ngeen jëf.